ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. demal. asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV yi ak ñuy suivre ci Lutte TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag su ngeen gisee jataay bii ngeen gis ñu toog. yaakaar naa ne Mamadou Lamine li jataayu yaatal lañ koy tuddee. Ah. jataay bi nag li ci jataay bi tey dafa rax. Uh-huh. Ah. mais c'est la première fois ñu toog bi maa lay la maa ngi lay fay bu baax a baax borom ak yaay borom yaay ga. maa lay nuyu bu baax baax di nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp ak waa Equivox TV di am mbégte ci ñoom bu baax a baax ak contentement di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal di sàkk ci ñoom ñaan comme ni nga ko waxee tamit mu mel ni jataay bi nag bu spécial la. par rapport ak yi nga xamante ne nañ ko def c'est pas la première fois ñu toog ak ki nga xamante ne waaye nag tey dafa rax benn ndaanaan suñu papa suñu tonton suñu lépp Sénégal yëpp xam ko Afrique yëpp xam ko mu ñëw seet ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène di ko delloo njukkal. par rapport surprise waaw ak ak li nga xamante ne jaloor yi nga xamante ne def na ko ci làmb mu nangul ko ko ñëw ndogoo ak moom di bi ñëw équipe Lutte TV ak ak équipe Equivox Arena waaye nag di ci nuyu ki nga xamante ne moom mooy Landiane mu nit ku baax nit ku oyof nit koo xamante ne ni gars yi di dundee làmb mhm. moom dundee wu ko làmb yenn mbër yi ñi leen ñi ñi di jege am na ñoo xam ne ni ñuy jegee mbër ni ñuy dundee làmb moom dundee woo ko làmb ndax heure boo ñëwee da lay ubbil ay buntam toog lekkandoo ak yow naanandoo ak yow waxtaan ak yow loo xamante ni sax bokkul ci làmb kon ñu ngi koy nuyuwaale bu baax a baax mu bàyyi la nag nga dugal gars yi par benn. Lamine na solo loolu nga wax ci lanjang olof nee na wax waxaat du bëri wax mais la wax la. yaakaar naa ne loolu nga wax dama koy dëgg rek la preuve mooy ba ñu ko waxee waxu Eumeu Sène daf nañu Souleymane fay day ñëw seet si ko te Eumeu seen mooy mbërëm mm. te yéen ñaar laa bëgg ngeen couvrir ko te lu mu ci mënoon daf ñu ko yombal mm. kon lañ ak mention spéciale di ko nuyu nga xam ne fa la jóge muy njaareem di Jurbel ñu toog ak nag koo koo xam ne international la mm. parce que nag Lamine du football kese wala basket wala bu leen ngay nekk international mm-hmm. mais Souleymane fay ci wàllu musique ci àddina bi àddina bi yëpp a ko xam mm-hmm. li ko waral mooy

soo mbokku mbër yi en rek laa leen di gis télé waaw ñoom tamit télé rek li may gis amu ci kenn mbër yëpp nag amu ci kenn ku ma si jàkkaarloo jaxaran nii comme amu nii tey amu ci kenn ku ma sa toog moom rek nem seen dafa neex rek quoi nekk waaw xam nga donc euh, loolu moo taxoon ma ko ma koy yàgg reebe yàlla toog dogal ko mu tomb ko wéeru koor bi alhamdulilah dama donc euh, sama premier wax mooy yaayam ñaanal na ko ne ko li nga def ci man soobe yàlla ni nga nekk roi des arènes mais bu dee benn bés ñaan bi nangu na je crois que li gën a jafe mooy nekk roi des arènes parcours bi ba ngay dox ba nekk roi des arènes boobu moo gën a métti mais nekkaat roi des arènes yomb na ñaata mbër ñoo fi nekk roi des arènes ñetti yoon ñeenti yoon donc moom xale bu ndaw la. il tout la vie devant lui man euh, vraiment mbër yëpp samay mbër lañu wax dëgg yàlla man mbër laa mbër yëpp samay mbër lañu man ku daan rek. waaw xam nga mais nag am cofeel ci mbër day neex dafa am ma am naa cofeel ci mbër quoi xam nga am naa cofeel ci euh, Eumeu am naa cofeel ci balagay am naa cofeel ci Modou am naa cofeel ci Bombardier am naa cofeel ci euh, Ama Baldé maanaam euh, mu nekk façon mbër yoo xam ne man dama leen tànn ci biir mbër yi. ñoom yaa leen tànn. maa ci biir mbër yi. bëri bi foofu la ne. <laughs> dinañ ci ñëwaat te ah. <laughs> yoon yi yoon yi dafa yoon yi dafa sori. lu ne xaj na ci lu ne. ñëwaat ci loolu noonu dinañ ñëw tamit seen relation yéen ñaar nga dugal ëmm. waaw léegi damay dugal waral lu jiin nga xam hmm. mu nekk koo xam ne tamit boo gisee da nga gis ci moom bayfaal. ak hmm. taalibe. Hmm. gis si moom tamit mu nekk nit bu dëggu. vraiment cofeel bi mu am ci man sama boso ko jiitu. Mm-hmm. sànq bañ toogee maa ngi wax maa ko toog naa temps bu yàgg bëriwuma. Mm-hmm. sa euh, musique bi mu woy ne ba ngay soog a doore. Mm-hmm. sa digg merci sa digg doole <laughs> sa digg doole si ngay soog a dooree. Ah. mu nekk loo xam ni moment boobu toog naa quatre ans bëriwuma. Mm. waaw su may dem cinq heures du matin di entraîné ji musique boobu laay déglu ba yegg su may ñëw moom laay déglu ba yegg ma kër nekk musique boo xam dafa ma ñaax dafa ma yokk doole mm-hmm. saa yi mooy voyage mag la ñu damay déglu Souleymane Faye bu baax mm-hmm. damay suivre même émission bu amee ni gars yi dañu may envoyé message mm-hmm. nekk loo xam ne vraiment lii mbégte la kon boo rek bu am commencement mais amul fu mu jeexee surprise bi ma defal nii yàlla xam ne ni sama xol dafa sedd. macha dama bokk na ci bis yu ma gën a kontaan. waaye bis ma gën a neex quoi vraiment. merci. yaa ngi ni mu ko waxee rek. nee na son bi nga bi nga xamante ni. suñu père bi doon na ko way. waaw ci sa digg doole. Mhm. bokk na ci li ko doon li ko doon motivé ay temps waaw dañoo bëgg nag père ma ñuy boobu. waaw ci sa diggu doole ana micro bi. avec la ak Lamine. ci sa digg doole ci ngay soog a doore ci ngay soog jaaxle li nga bëgg dafay bari. lu muy laajee leneen lu dul doole lu dul alalee ci ngay soog a xam ne li nga bëgg yow moom yow dafa bari te wuute ah def ci xel be bu tay jox xol be ah mel ni ba ngay soog a doore ci say biir yi nalee li nga bëgg yow moom yow mbaa ah, xam nga li mu laajee ne nga wàññi su bëgg-bëgg yee boo dégool wàññi doxaan te sa xel bi tey sa xol bi yii fii del lu mel ni ba ngay li nga bëgg yow moom yow mbaa ah, xam li mu laajee ne nga bàyyi tux bee mbaa nga wàññi li nga bàyyi naan bee mbaa nga wàññi ko del lu ba ngay soog a dooree ci sa diggi ci ngay soog a ci ngay soog a ndax nit ñi ak mbër yi dañoo bari te wuute vive le champion am na solo gaay <laughs> macha allah ëmma ëmma ëmma ëmma ëmma ëmma li nga dégg neex na de. non fu mu moom ba def ngem bu bëri rek laay gis fu mu toll ah. parce que maanaam way bi dafa bëri lu ci nekk ci loo xam ne day ñaax doomu aadama day ñaax nit pour mu gën a yokku ay jëfam ak ay man-manam ci àddinaam. waaw effectivement noonu la demee parce que woy bi lu may fàttali fu bari waaw li may fàttali fa bari moment bu moo toogee boobu maa ngi waroon a bëreeg Moustapha Guèye. Hmm. combat bi yàqu. Hmm. war a merci. xam nga ma nekk ci moment boo xam ne nekk naa ci moment bu xaw a bu difficile sax laay wax parce que suma yaay jël na ay nagam jaay ko ay yëkk yu bari mu jaay ko yónnee ma xaalis bi jox ko suma rak xaadim te xaadim xamul ni xaalis lañ mu yónnee. xamul ko mer waaw ba demee ba ci ëmb seen jox ko téléphone bi mu ma woo ko mu ma tekki na mu génn mu génn mu tekki lii defal lii defal lii fa ma tekki muy xaalis mu ne ma loolu suma xaalis damaa jaay suma yëkk yi parce que yaay suma banque boo amee ma am boo ñàkkee ma ñàkk defarul ci xaalis bii waaw defar ci bu baax yokkal sa entraînement te nga góorgóor lii dama bëgg mu doon ay millions. léegi nag ba ma njëkkee dugg ci. lan ma taxoon mu envoyé la xaalis boobu donc woo ko da nga banque wala moom moo toog. sentir ni non non dama fa gëj dama gëj Casamance. Uh-huh. waaw te daaw ma fa gëj. waaw mm-hmm. te man dama bëri kersa. voilà mu toog xam ni saa yu waxee ni gëj naa la gis maa ngi ko te suba dinaa préparé temps yi li mu wutee mu comprendre nga yaay doom rek. mu comprendre et puis ma mën ci moom ak nu may kay nu ma xëree ci moom. mu comprendre quoi après ci la ma expliqué. te la ko jox pour nga defar ci. 5 euh, heures du matin boobu ma njëkk a dugg sama oto. rajo lañ jàppee son Souleymane Faye bi. waaw mu ma déglu ko daal di dem ci lendemain bi nag ci laatu kaset bi parce que soo loolu wax la waaw ma déglu musique bi musique bi gën ma ñaax maanaam mu mel dañ ko yónni ci man <laughs> waaw ku ñu yónni ci man nag ma déglu son bi sama karo bopp yi taxaw ma xam ne lii kii li mu wax ci musique bi non lii lu lii ndaw bu ko déglu war nga mën a war nga mën a nekk der waaw waaw day yokk jom daf ma yokk xaal quoi ma yokk xaal waaw ma commencé nag léegi musique boobu saa yu ko dégg may dem màcca waaw léegi nag musique boobu nekk suma musique dama koy déglu any time every day waaw saa yu ma ko dégloo daf may xabtal waaw jour boobu ma premier combat ma njëkk am Balla boo xoolee. ci Demba Diop. bu la tombeel may may avance combat di ñëw net Balla Gaye delloo tombeel waaw moo tax jour boobu may dem ci làmb ji boo xoolee ci biir oto bi son boobu laa teg di bët di dem làmb waaw musique boobu laa déglu ba ci buntu làmb ji man a gars yi fay leen kilim fay morceau bi ma soo ma wàcc waaw moo tax boobu moo tax bi azaarul waa azaarul ba pare nag yàlla xam ne lañ ak mën na ma seede su may voyage dama koy déglu mooy déglu ay musique am mais vraiment macha allah quoi waaw. <laughs> Eh, tonton defe naa waa réaction sa réaction ci lii Eumeu Sène wax nii ci sa son bi nga xam ne nii am na lu bëri lu mu defar ci moom. waa parce que digg doole. mu mm, euh, nekk milieu bu euh, moment bu délicat euh, dans ci ci ci jeune ci jeune xam nga nekk sa digg doole champ gel yi bëgg la gis bëgg yooyu moment boobu nag ba deful attention rek du baax. waaw du baax du baax voilà moo tax digg doole dafa dafa bu délicat la donc bon moment boobu nag ci ngay baaxlee ci ngay yàqulee aussi. xam nga ah? foofu nan nga ba baax. waaw mooy euh, li ma wax film bi rek bon euh, lépp loo xam ne jigul rek. moytu ko. lépp loo jigul. nag rek moytu ko. lépp loo xam ne jigul rek. da koy moytu. ndaw lan moo ko jigul. waaw moo tax ñu ne lu lu dul doole. lu dul alal. xel la. du gi doole ci nga jaaxle. li nga bëgg am nu muy laaj. loo xam du doole. waaw du alal. lan la. léegi léegi loolu am na solo. Babacar waaw ah, kese. sa sago. ana sago rek waa ana sago lépp loo mën ngi def rek ana sa sago. ku nit bu tàggoo sagoom rek dootul nit. waaw booy def lu mm. xam nga li nga def bon bon na. booy def lu baax nu nga baax na. donc nit ku muy def xam na bu bonee xam na baax xam nga man dama gëm rek ni kuy ñafe quoi kuy fight Bon, et ce garçon-là, moi j'ai 70 ans, mon oncle Diouf. Mais je l'ai vu, je l'ai Je l'ai vu sur le terrain en train de battre. Il n'est du nit. <laughs> non ñoom ñoom seen sox yi man moom joxoon benn rek. Ah, waaw kuy xoolal. mais xoolal na baax na. Ah. <laughs> de nga bëre. ah yow da nga daan bëre. oui ah. am naa sax benn. Euh, technique bu may jaay. ban la technique bu mu bëree. Ah. technique bu bëree. benn dama koy jaay. doo ko doo ko wax ak sa waay. ci pet am naa benn technique boo xam ne ah. ah. Euh, boo ni ko boo ko daanul na ma jaaxal lool. la sikiri. Hmm. oui. na jaaxal lool. dina la jaaxal lool père léegi liñ lay laaj mooy bi ngay toll ci sa ndaw comme ni nga ko waxee ci waay bi làmb ndax doon nga dund làmb doon nga fréquenté ay mbapat. waaw parce que xam ñu mu ñu jógoo euh, almenku ñu màgg ak euh, fekk nañu làmb fekk nañu làmb euh, Doudou Baka Sarr. waaw Sana làmb bëgg Baka Sarr. ok Sana làmb Fodé fekk na làmbam. Mhm. Mbaye am de am maam góor gi la. maam góor gi. maam góor gi Ndiaye. fekk naa la maam. Mhm. ak sori. waaw. wuni yi ndigal yi rek gàll ji daanu. waaw daanu. <laughs> ba ñaar foofu rek gàll na mooy sama ndey. <laughs> waaw si tànnaa ko. sànnaa sànnaa <laughs> ah. ah Robert Diouf. Robert ah. Diouf. bu ah. ko nuyu nii. topp di ko topp nii di ko nii. di donc ba man euh, dama bëgg dama bëgg làmb ah, ah, da nga bëgg làmb. que mais comme nu ma la ko waxee. Euh, trophée bi day dama ko ñëw. ñaata mbër ñoo fi am trois fois roi d'arène deux fois roi d'arène ñaata ñaata mbër. foofu laay waxee ëmb. ayil bi amul ay découragé amul dara. xoolal yoon baa ngi ni loolu mu daanu. waaw waaw doomu daan loolu la quoi que le ah, <laughs> léegi léegi waaw léegi kon ëmma dañuy tëj phase boobu ak Souleymane fay defe naa tey li tax ñu koy tëj mooy ku mel ni bu ñëwee wax wax bu mel ni ci yow seere seere bu mel ni ci yow mu mel ni yow tamit wokkatu bu daje gestu la ndax daan na la dimbali ci bi nga nekkee ci ay moments yu difficulté ba tax tey ngay revenir at ci niveau bi nga nekk ba nekk roi des arènes defe naa kon tey. loo ban kàddu ngay mujj waxanteeg Souleymane Faye ak tey déplacement bi mu def ñëw ba sa kër Lagros fekk la fi. waaw da am rek mbégte boo xam ne kon la fay sànq rek bu am commencement mais amul mu jeexee vraiment surprise bi ma defal nii dafa dafa rëy rëy boo xam ne ci man waaw beneen affaire la beneen affaire la parce que bon dafa tungob seede daal waaw tungob la quoi waaw waaw merci ma ci nuyu. grand pape Pape Diallo mu nekk grand bu baax vraiment bu may conseil lu rafet di ci nuyu Lanjang waaw parce que lu tax nuyu mooy ay maga lañ maa ngi ay copain waaw dañu bokk ndey bokk <laughs> xam nga di ci nuyu tamit aussi Khady Traza bu baax waaw suma ñaareel boobu ah <laughs> di nuyu tamit aussi xam nga suma jabar xuja bu baax a baax a baax di ci di ci vraiment di ci am contentement boo xam ne li may wax rek dafa rëy ci man daal lii dafa rëy ci man waaw dafa ci man tey ku toll nii Souleymane Faye xam ak jàllale ju mu def ak ndaanaan gu mu nekk mu def la mu defal la surprise bu mel nii vraiment du ma def lu ñaan ko yàlla suñu borom. mbégte la daal waaw mbégte la bu rëy. keroog gis nañ fi pot. Hmm. mu ñëw amu leen relation. Euh, lan la ci Eumeu waa xam nga tey jàmbaar day bëgg jàmbaar. jàmbaar day bëgg jàmbaar parce que jikko yu muy gis si jàmbaar waaye jikko yu koy neex ci ndoomu aadama lay gis si yow moo tax ngeen di yàlla def lu mel na mm-hmm. lii lu may yokk mooy daf may yokk jom rek su ma doon def benn ma def fukk. Mm-hmm. waa te tamit aussi dina tax tamit aussi ñu gën a ñu gën a mën a liggéey. gën a mm-hmm. mën a xoolaat kàddu yi gën a mën a. waaw gën a mën a defaru daal. waaw léegi Babacar foog ñu am ay questions ñu continuer di ko laaj may nuyu tamit aussi porte bu baax. porte waaw porte waaw nuyu bu baax di nuyu tamit Aïda Samb di ko jaale. Mm-hmm. Aïda Samb maa ngi koy jaale lu ñu bokk. Mm-hmm. waajuram. Mm-hmm. maa ngi ko siy jaale bu baax di ko ñaanal fi waajuram tëdd yàlla ko gënal fi mu jógee. amiin incha allah yàlla jégul koy bàkkaaram yàlla xare ko ci àddina firdawsi. daal ñu koy ñaanal bu baax di ko ñaanal tamit aussi carrière bu rafet. waaw vraiment ku am la moom tamit. waaw comme talent la waaye. yàlla na moom waa juróom boobu noonu. mais mais démb am na lu xewoon. waaw MMA combat Reug Reug bi ndax seetaan nga ko démb mu enregistré première défaite am ci MMA bi seetaan nga ko lan ngay wax Reug Reug. koy Reug Reug moom suma rakk la. parce que yaayam su may bëri ji day génnee sarax. yaayu daf may dafay génne yaayam daf ma avant Reug Reug fekk na moom mu nekk koo xam ni daf ma yàgg bëggee. Hmm. yàgg ma supporté yàgg ma di ma ñaanal kon Reug Reug suma rakk la. ma koy ñaax rek na ko champion la te xale la. Mhm. maanaam defetu yàlla na ko yàlla lafal cat. maanaam defetu démb du ko yàqal dara ci carrière non non non non yàq ko yàqalu ko dara parce que du defet sax. lu tax nga ne du defet. waaw parce que ku ne xam ne ni coup boobu mu jël du coup coup bu réglé. Eh, bon kii bi dafa sonné. Mhm. mu bàyyeeku. Mhm. waaw mu recevoir coup xam ne. irrégulier la. waaw mu recevoir coup parce tamit ku xam ne ni loxo. loxo bu la dalee fu mu la war a dal amul mu effet bu munul def waaye loolu laa gis ni loolu moo yàq combat am ndax bu doon fii moom dañ koy jox victoire bi. Mhm. waaw parce que man lu mel noonu laa doon xaar Babacar. man lu mel noonu xaar ko koy jox. loolu laa doon ah, xaar parce que man man man jokkoo naa ak euh, agent am. Mhm. léegi ñu ne ñoom dañuy bind recours. parce que d'accorduñ ci loolu parce que sonore bi daa am ba pare ñu dóor ko mu bàyyeeku ñu ko ko. waaw parce que xam bu fekkee da nga bàyyeeku bu la dóoree day fekk sa yaram yëpp bàyyeeku. boo jëlee coup bi moom da nga koy yëg waaw non non non boo ko jëlee te loxo moom mun a def effet bu ne a ah. waaw loxo moom loxo bi tey cent nangam kilo moom fu mu dal day def effet et fekk la nga bàyyeeku waaw bu la dalee rek day dalay jàpp. avenir Reug par rapport ak MMA bi tey ak fi mu ci toll mu ci quatrième combat di ci wane ay performance yu doy waar ba démb si doog a ñàkk benn comme ni ñu ko waxee tey ci kanamam nii gis nga ne comme ni yi wax naan fi gën a sori ci MMA war na fa mën a dem muy UFC ak yooyu. Hmm. yaa ngi xalaat loolu ci moom. war na ko mën a téye war na mën a téye MMA bi nii ci loxoom te maa ngi ñaan Sénégal yëpp ñaan parce que drapeau Sénégal la mhm. waaye su demee foofu Sénégal lay présenté. waaw mhm. ah, kooku Sénégal gi yëpp kay ñaan amul effet d'adversaire wala dara Sénégal yëpp nekk ci ginnaaw waaye moo jaadu te gëm naa ni da ciy sori gëm naa ni mën a dem ba xam nga waaw ba yegg fa ci cappaandaw ga pourquoi xale la am na doole lamb mais nuyu la loxo kese la ak yàq. léegi da sol gant champion la ci de mun na ci sori de waaw. bu <laughs> ko gisee daal sa xel dal na si non macha allah maa koy suivre bu baax naa ah. ne père nu mu xam waaw waaw waaw père euh, MMA bi xanaa am nga loo ci xam yow tamit. MMA ah, Reug Reug xam naa ko rek miinu ma ko nag waaw. noo ko gisee wala euh, trop euh, bariwul donc mënu ko juger mais tur siiw na moom. mos naa gis mu benn yoon ñaari yoon mais xamatuma kañ ak naka waaw war na ci ko bari ci mbër yu ma neex te xaw ma. waaw xaw ma. a mooy sa non man ñëpp man ñëpp yàlla ñëpp la bëgg ah yàlla ñëpp la bëgg quoi man vraiment euh, euh, je ne cache pas mon affection avec ëmb ëmb bu ko nëbb pourquoi ma koy nëbb mais ça pas dire que dama bañ ñeneen ñi man mi ñuy bëree yëpp samay gaañ la ñu même même même même Gris Bordeaux dama ko fan man dama fan dama fan euh, Balla dama fan euh, Boy Niang dama fan Thiat Thiès waaw waaw xam nga man dama xool mbër de waaw yaaw jaal waaw bëgg mbër quoi dama bëgg mbër Lamine euh, euh, léegi daal euh, est-ce que kon léegi tam duñ dugg ak parce que ëmma fan yi am na lu ma gis muy muy muy muy muy muy yëngutu muy direeku xaw ma drago géejawaay ba la xaw ma am na daal lu ma dégg muy direeku te ba léegi moom nangu wu cee wax te nangu wax te loolu ñu ngi dégg ci ay ruumandaat ak ay jàppal bàyyil xam naa lañ ak moom xam na ci dara est-ce que jëluñu sax avant est-ce que yéen ëmma si ëmma seen yow actuellement ni ñuy wax ak nii ci weeru kooru tey wii est-ce que ëmma avance nii actuellement fi nga toog nii ëmma seen kay fu toll nii dafay bëgg day bëggee fansam man damay bëgg sama fans de tey moom bàyyi la non tey bàyyi la rek ma bëgg sama fans nag tey moom sa way noo tey moom sa way bis la boo xam ni peera ma seet si te bii dafa rëy ci man boo xam ni. wéru ko léppay woor. merci ñu noonu waaw. même wax day woor. waaw dëgg nga. <laughs> mais mais reprendre nga entraînement yi. mais mais mu ngi entraîné. waaw waaw maa ngi cokki cokki nag daw rek laay def nag daw rek. cokki waxaale woo fi dara. cokki cokki rek laay def. waxaale woo fi dara non fu mu toll nii kay sa waay man bàyyi ma déglu ma enjoy. laaj nag demul kër Père Gaston. Hmm? laaj nag demul kër Père Gaston. waaw ah, man de la dañuy sama papa la. Ah que laaj nag demu fa. waaw mais xam nga dexoon naa lu ma wax nee la tey damay bëggee koo xam ne nii. waa dafa bokk cay ci bis yu ma gën a neex. surprise bi ma defal nii. non mbégte bu ma am dafa rëy. billaahi. janoog janoog janoog jama jëmm ji dafa neex trop. waaw. lii moom. defal naa ko mbir yëpp. waaw bu ma ko defalee kay ñëpp la ko defal moom rek. waaw waaw merci mbir ni moom rek defal naa la ko quoi. waaw merci waaw même cër bi nag. waaw baal ma laaj père digganteem ak Balla Gaye troisième combat loo ci wax. ah Balla Gaye. waaw ñoom ñaar seen troisième combat. non day nekk. day nekk ah ah. lu mu ma nga wax de. yàgg lu mu yàgg yàgg day nekk. dinañ bëri waat. waaw. <laughs> yow sa xel dal na ci loolu. waaw waaw. ëmb ak Balla troisième combat. waa parce que c'est logique quoi. c'est logique. lu logique la. lu logique la waaw. Uh-huh. Mm-hmm. combat bi mu doon bëri fan yee passé te mu bëri pare ñu. coow la topp ci ak combat ba coow la ca mujj am ak jàppal bàyyi loolu noo ko dundee moog la daggéer de. booy bëree ko bëggul bëree moom day de. booy bëree ko bëggul bëree day métti. ñoom ñaar daam ku ci bëgg ko a bëri. waaw pour man lak dafa daw res. lak daw res lu mu def moom. dafa bëggoon bëree. dafa bëggoon daan. père père père nag père est-ce que néew di far nii nag est que ma est na ma dañ ko daan gis muy dóor gauche droite des fois. mu wàcc laaw song la jël say tànk. waaw mais mais ay dégg daaj quoi affaire ay dégg daaj la. waaw waaw ah kenn kenn toroxal sa combat. kenn toroxal sa combat. Ah, waaw ki nga bëreel bu bëggul bëree. waaw bu bëggul euh, bëre njël du am. boo bàyyi bëri da ba ñu daan la mais njël la am ñun lañ bëggoon ñun njël la combat boobu rôle nul noonu. daa la kay am na victoire niilul mais. am na victoire de. li ñëw daal xaaral beneen yoon. léeg-léeg eh, tey jël naa benn benn kii. coordonnateur moo gét moo bëgg loolu combat bi yaakaar naa suba lañ koy régulariser wala guy gi ak kële suba lañ koy régulariser wala ginnaaw suba wala ginnaaw suba bu fa guy gi génnee pare pour bëreeg moom waa lamb la guy gi champion la champion la xam nga mais nag aussi da moom staff waaw mi ngi dox merci waaw mi dox waaw mi dox mi ci yoon waaw mi dox lamb loolu da ngay dox waaw da ngay dox waay rek mooy loolu waaw waaw wax yow daa mel ni ko estimé yow nag da nga mel ni da nga guy gi de. jaru ko jaru ko champion la euh, champion la. waaw ne ay preuve yu tax ñu ne champion la guy gi champion la. Hmm. wa mais man am naa staff. Hmm. am na loo xam ne staff bee koy gérer. kon nu ko som père waxee rek mi ngi dox. mi hmm, ngi dox mu dajee rek noonu la. dox daje lépp a ci biir dox daje. waaw ah, dox daje lu dee ngi ci. waaw mi noonu. jël <laughs> la ngi ci. waaw lépp a mu daanoo. lépp a ngi ci. cest à bu ñu gisee Balla gay 2 ñu naan signé nañu ci contrat. yow tamit champion bu toll ni yow ñu ñu lay sollicité gars yi di xaar naan ëmb est-ce que du signé ñaar wala ñett ak yooyu. waaw combat yi ndox nag vraiment bëri na quoi waaw ah, ñu ngi may dox ñuy dox combat yu bëri waaw ah, mais tam aussi am naa staff quoi ñu ngi si waxtaan ak ñoom loolu du sama du sama rôle rôle staff bi la lañ ak mi ngi ne Khalifa Niang mi ngi fi après di nga ci waxtaan ak ñoom. xam nga xëy ku ne ma sa combat ak bu taxawee coow moom yaa tamadu la ëppi buum. waaw coow dégg naa di nga bëri ci adama koo dégg dañ ma koo wax. non bu ji dèjà nii rek da ci am coow ni ñu lu ma naan nii rek yow xam nga coow li muy bu mu toll nii dafa mel ni combat bi dafa taxaw ba ñu ngi ak sëbële ñi bëre. <laughs> loolu di coow li. fu ne la ma di woowee nag. koo xalaat mu may woo xam nga fu nekk coow li moom xam nga loolu moom manqué coow li moom commencé na dèjà xam nga ku nekk yi waral mais bon mu ngi noonu daal hmm. mu ngi noonu daal. Hmm. maa ngi ciy nuyu nag Ibulaay borom poro oto. moo ñu jox tey dot suba. dot suba kenn du Ibulaay. poro oto Ibulaay borom yoof ca armeeru yoof yi ca biir mën naa xam na foofu poro oto. waaw poro oto Ibulaay Ibulaay xam nga ko. poro oto. Ibulaay ah, benn bu xaritu Modou Lo. Ibulaay bu Pikine ngay wax. non Ibulaay bi parcelle la. non miinu ma ko nag. borom Poroto ñu ngi ko nuyu. Ibulaay ma laa xam. ok bii bii waa léegi Eumeu Sène. Eumeu Sène bee. xam naa kon booy Eumeu lay wax. li ma fi ma bëgg a ñëw ak moom non booy Eumeu waxut booy Eumeu booy Eumeu Medina la <laughs> dëkk la. waaw a ñëw ak moom Babacar. mooy. mooy frère am. waaw combat bi mu taxawee ak léegi. mu def trois ans. Ama Ama Baldé régularisé nañ combat bi tey ci CNG combat bi am na date muy le vingt cinq décembre dafa mel loolu mbégte la ci yéen waa Pikine waaw mbégte di ko ci ñaan yàlla may ko ndam. waaw ñu ngi koy ñaanal ndam. Ama fu mu dugg nooy na. champion la waroon na daje ku ne. loolu lekk avance am. Mm-hmm. Ama Baldé mu la avance Ama la lekk. làmb la waay ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam. te di ngeen ci def li ngeen man pour am ndam. incha allah ñu ngi tàllal wax yàlla suñu di ko ñaan ndam. gars yi nag nee nañ arène nationale bi moom jigéen gu leen moom xam naa combat bi. waaw moo tax combat bi est ce que Abdou Bakhoum dox nañ ko yóbbu Gambie sax wala ñu yóbbu ko Parcelles. Euh, njëkkee fu naqari mujjee fu neex moo gën nga njëkkee fu neex li mujjee fu naqari. daal li ngeen fa jëkkee mu naqari amul muskila. amul naqariwul sax ah. bu amul benn naqari si yeneen du yooyu du combat yaa ma gën a xam. parce que gars yi fi ñuy waxe mooy Boy Niang perte na fa par recours yow nga perte fa par avertissement Jet Li perte fa des na Lamine wala. waaw Aliou Mané Aliou Mané perte fa. quatre grands mais loolu dara limu mu moo ci nekk rek waaw. jëkke fu naqari daal. mujjee fu neex. moo gën. te day neex incha allah dina neex neex. wiri wiri. waaw. Ama ak Modou day neex. waaw combat bu neex la. dama dégg Modou ci benn mu ne ko du ma ñeexu ñebbe de ci conférence de presse. waaw loolu seen wax la ñoom ñaar quoi vraiment loolu moom dama ci tontu quoi Modou lu dama ko koy nangul champion la def na fi jàllale ju rëy ah. mhm. bu mag la daan ëmb seen waaw loolu woy la dëgg la ah, mi ngi noonu champion mhm. dañ koy nangul ay waxam. dëgg la mais ñun tamit ñu suñu rek di liggéey rek di ñaan yàlla ndam. mais Modou champion la. waaw champion du mbër bu ñuy xeeb aussi am na ay qualité waaw du mbër bu ñuy xeeb am na qualité. Mhm. mais ñu suñu rek di liggéey te ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam waaw te am na am yaakaar bu baax. am ngeen yaakaar ci le boobu Luc Nicolaï jàpp incha allah yàlla nañ ko fekk de tal ko. waaw bu baax ndam yi fi yàlla suñu borom la. ñu ngi koy ñaan ndam. yaa ngi koy ñaan ndam ah léegi père lu muy may ci làmb mos nga ngaa woy songu làmb. <coughs> sam soow làmb euh, waaw mos naa woy benn woy ci làmb. waaye dellu ñu am lamin góor piir dafa bëgg moromu góoram góor piir dafay fonk moromu góoram góor piir du jànni moromu góoram toroxal moromu góoram jigéen piir suturaal moroomu jigéenam ma ne jigéen piir du xaw a sutura moroomu jigéenam sama yaay mu ne Souleymane góor piir day bëgg moroomu góoram comme ni ñuy bëgg mbër mu ne baax nga yaru nga jàmbaar nga laabir nga waaye at ba at nga dem waxtaan sa mbokk yi ñu seddi sa maame ñu sang la baax nga yaru nga digi ken nga jàmbaar nga waaye léeg-léeg nga dem waxtaan sa mbokk ñu seddi sa maame ñu sang bi maa nga woy 97 ma ko woyee ma ko woyee Moustapha Gueye dafa yónnee ndaw Moustapha Gueye lutteur yónnee ndaw leneen Souleymane ah lu tax mu woy sama tur bi ci woy bi baax nga yoro nga liggéeykat nga jàmbaar nga waaye léegi nekk na waxtaan sa mbokk yi ñu seddi sa maam yi ñu sangat la adduna bi bëre la ku ma sëbëram daan ba nanguwul bëre ñu bëre ba daanu ci sa kaw àddina bëre la fii Afrika la fii baaxi maam ya ñu musul mbër sax ñu ngi bëre bëre lu bay waaf ci sa kaw ñu mënul bëre sax ñu ngi bëre bëre lu bay nërmeelu ci sa kaw Moustapha Gueye yi Yékini bëreel Bombardier bëreel Eumeu Sène bëreel Lac de Guiers bëreel Gris Bordeaux bëreel Tapha Gueye bëreel Balla Gaye bëreel ñi matul daanu ci kaw sangatil sama mi ñu sangat la baa nga ñëw ci man ma sangat la da nga dem marché gën benn bale bale boo xam ne kenn mësu ci bale yóbbu sa kër da koy suwa ndox ak cent franc bàyyi mu fanaan ba yeewoo sango ndox mi naan ci ndox mi jël cent bi may ko jigéen mooy caga bi njëkk yi koy may juróom-ñaari socc yu bokkul borom juróom-ñaari socc yu bokkul borom juróom-ñaari socc yu bokkul maanaam foroon bee socc rek for ba muy juróom-ñaari socc takk ko ci buum dafa ci siwa ndox bàyyi mu fanaan nga yow sangoo ko bu jaaxle ba jaaxle bul di géej géej li bu amul gàllaaj géej mooy gàllaajam bu jaaxle ba jaaxle nga sangu sangu portugais sangu portugais jël siwo mbaa pot di saw ba mu fees moo jël mu tuuru dem ba jub géej sangoo saw mi dugg ci géej gi léppay toj seti sama ñu sangat ko mais ñu daanu ci sa kaw bëri daan bëreel daanu bëreel ba bëriwul daanu bëreel ki daanu may daan bëreel ki daanu may daan bëreel di bëri bëriil bu di bëri bëriil ba ma seetlu leen bëri daan mooy daanu bëriil bëri daan mooy daanu bëriil dafay bëgg moroomu góoram mbër piir dafa bëgg moroomu mbërëm te waxal moroomu mbërëm jàngi moroomu mbërëm du sewal moroomu mbërëm góor piir góor yëpp du ñu piir nag